wa min aljinni fariqun daxala alislaam wa aamana bi nubuwati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa minhum axaruna eh, baciduuna an alislaam wa fi suurati aljinni xadiisun an jamaacatin minhum aamanat billahi wa rasulihi wa samicat alqur'aana min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fahtadat ila alxaq wa dalika qawluhu subhanahu wa taala qul uxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn faqaaluu inna samicnaa qur'aanan cajaba yahdi ila rushdi fa aamannaa bihi walan nushrika bi rabbina axada ñu ne am na ab kuréel ci jinne yi waaw am na am mbooloo ci jinne yi gëm nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mën nañu wax ne jinne yi ñaari kuréel lañu am na ñoo xam ne ay juddit lan yuy pratiquer seen lislaam di julli na mu ware di woor na mu ware di joxe azaka na mu waree di def lu baax di moytandiku itam di tooñ wala ñuy gàddu àq am na ca yeneeni kuréel yeneeni mbooloo yoo xamante ni ñoom amuñu diine ay yéeféer lañu mën nañu jëfandikoo sàngara mën nañuy njaaloo mën nañu rey nit mën nañuy gaañ nit ñi li ci ëpp jinne yiy jommal nit ñi e, wala ñuy jëfandiku ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla moo di jinne yéeféer yi waaye jinne yi nga xamante ni jinne yi jullit lañ ko jinne yooyu lépp lu salte lu lislaam bëggul dañ koy daw mu ne nag lii liy dëggal wax bi moo di soo demee ca eh, eh, suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uxiya ilayya annahu stamaa annahu stamaa nafarun min aljinn fa qaalu inna samicna qur'anan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika bi rabbina axada alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu déggee alquran wàcc ci moom ñu génn ca cànkute ga ñu nekkoon wuti leerug lislaam ak njubam mooy li ñu yàlla wax yenent bi wax ñu ko ci kàddu borom bi mu wax ne déy ma yàlla déy na ma wax ma ne ma am na ak kuréel ci jinne yi ñoom de déglu nañu sa alquran bi ba ñu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kàddu dëgg ak njub ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na dégg nañu quraanan alquraan ajaban bu yéene waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ci ku ko dégg danga ci yéemu inna samicna qur'anan ajaba alquran joo xam ne yahdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila di ci mbaax ak yiw fa amanna nun di gëm nañu sax bihi ci alquran jooju gëm itam yonent bi mu wàcc ñu leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nañu bokkaale daan def lu bon waaye tey bàyyi nañu bokkaale tey d'accord nañu ne yàlla rek mooy yàlla amul kenn ku mel ni moom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokkaaleek suñu borom kenn yàlla rek la jël dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteek suñu borom loolu ay jinne ko wax yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran soo demee ca suuratul jinn danga ko fa gis waqad saxara allahu aljinna li suleymaana alayhi salaam tacmalu bayna yadayhi bi idni rabbih wa fi dalika yaqulu subxaanahu fi suurati saba wa min aljinni man yacmalu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yuzic minhum can amrina nudichu min cadaabi saciir يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا icmalu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur nee na yàlla tàggat na jinne yi pour Suleymaan yàlla ko ko baaxe mu nekk ak jagle ci moom ñuy liggéey ci teewaayam ak ndigalam ñuy liggéey liggéey boo xamante ni sañuñu ko bañ ndax yàlla ci boppam moo ko baaxee loolu mu not jinne yi di leen liggéeyloo moo xam ñu nangu ko walla ñu bañ koo nangu mu ne boo demee ci suratu saba yàlla mu ngi fay wax ni am na ci jinne yi ñoo xamante ni ñu ngi liggéey ci ñu ngi liggéeyal Suleymaan ci sama ndigal man yàlla te képp koo xamante ni bañ nga liggéey boobu nee na Suleymaan dana la mosal ci wàllu mbugal mbugal mu metti moo xamante ni dana tax lu la sant danga ko def nee jinne yooyu nag daan nañ ko liggéeyal ay maxarib mu di maxarib nag moo di ay jàkk waaw jinne yi ñoo daan tabax jàkk yi waaw dangay gis jàkk joo xamante ni na mu rëyeeg na mu taarook na tabax ba yéeme nga xam ne lii du liggéeyu nit waaw ba ci eh, masjidu Quds moo di jàkka jooju nekk Jérusalem jinne yee ko tabax ci ndigalu Suleymaan alayhi salaam kon ñoom ñoo doon tabaxal Suleymaan jàkk yi ñoo ko doon tabaxal itam statue yi waaw moo di wa tamathila mu di ay statue yoo xamante ni xëy na léegi la statue aram waaye bu njëkk ba moom statue nekkoon na loo xamante ni lu dagan la woon wa qiila innaha kaanat suwaran lil anbiyaai wal ulamaa wa kaanat tusawwar fi lmasajid li yaraaha nnaas fa yazdaadu ibaadatan wa shahaadan ñu ne nag statue yi ñu daan tabax ndax dañ daan tabax rek statue bu leen neex ñu ne déedéet jinne yi dañ daan tabax ay statue mais nag statue yooyu ñu daan tabax ay Eh, jëmmi yonent lay nekk wala ay boroomi xam-xam yoo xamante ni faatu nañu nit ñi bañ leen a fàtte ñoom jinne yi ñooy tabax seeni statue su ko defee nag nit ñi di xool statue yooyu statue yi di leen gën a encouragé ci wàllu jaamu yàlla ndax bu ñu xoolee statue ya seen xel day dem ci ne nit kii de nit nitu yàlla la woon bu doon dund ci kaw suuf jaamukatu yàlla la woon ku baax la woon waaw bu ko defee nag statut bi moo lay fàttali jëf jë nit ki daan jëf su ko defee loolu tax ngay góorgóorlu pour roy ci ay jikkoom pour jéem a am garat ya mu am e, waaye boo demee ci bi moom mu ngay nettali di wax ne an rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal an ahli dalika zaman inna ulaika kaana ida maata fihim rajulu saalix banaw ala qabrihi masjidan wa sawaru fihi tilka tilka suwar ay li yatazakkaru cibadatahum fa yajtahidu fi lcibada wa hada yadullu ala anna altaswir kaana mubaaxan fi dalika alzamaan wa yuqsadu biltaswir altaswir almujassam ñu ne Qurtubi mu ngi nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne eh, nit ñi doon dund ak yonent yàlla Suleymaan ñoom bu nitu yàlla masaana gaañu ci ñoom buñ ko defalee bàmmeel ba pare dañuy tabax jëmm waa ji ci kaw bàmmeel bi bu ko defee e, nit ñi di mën a xool waa ji di fàttaliku ay jëfam pour mën ko cee roy loolu moo taxoon ñu ko daan def ñu ne nag loolu day wane ne kon tabax statue Eh, ci jamono booba lu daganoon la waaye nag bu dee léegi nag daganatul lu tax ndax dañuy bay nit ñi jàppee ko ay xërëm di ko jaamu waaw su ko defee nag eh, bu njëkk ba daganoon na waaye ci chariatul muhammadiya moom daganul dafa xaram ñu nekkoon jinne ñoom ñoo daan tabaxal suleymaan estatu yi daan leen ko itam E defaral daan liggéey ay booli yu rëy yoo xamante ni daan ci def ñam yi ndax Souleymane dafa bari woon njaboot waaw jinne yi ñoo daan lépp lu jëm ci wàllu ndab lu jëm ci wàllu ndab jinne yi ñoo ko daan liggéey kon ñoo daan tëgg yi nga xamante ni ñoo daan defar super ak i booli yu rafet ak i paan lu ne ñoo ko daan defar waaw lépp lu jëm rek ci wàllu lekk jinne yee ko féete woon matériel boobu di ko liggéey moo tax mu ne aljifaan boo ko dee firi moo di alqisaa allati yudaxu fiha taam waaw mu ne itam ñoo daan liggéey itam cin yu rëy yi nga xamante ni ci leen daan togge waaw comme niñ ko waxee rek Suleymaan ku bëri woon njaboot la moo tax lépp ma daan rëy waaw moo tax cin yi ñu daan toggee la cin yi di rëy rëy yépp waaw kaw dir yu mag yi jinne yi ñoo ko daan liggéey moo tax faqad zakara almufassiruuna annaha kaanat quduuran daxma min annuxaas wa annaha li daxamatiha kaanat thaabita fi makaaniha la tantaqilu wala tuxmal ñu ne cin yooyu cin yu rëy la yoo xamante ni jinne ya ko jinne yi ñoo ko daan liggéey waaye nag rëyaayu cin ya daan na tax kenn du ko mën a gàddu ndax nañ ko daan liggéey te ci nickel lañ ko daan liggéey mu nekk cin yu rëy loo bëgg togg rek mën nga ko cee togg mu nekk ay mbana yu rëy waaye nag jinne yi gis nañ ni am na ci mbooloo moo xamante ni daan na lu féeteerlu di lank li leen Suleymaan di teg waaye ñoom Souleymane daf leen daan jàpp yeew leen bañ ne ngodd takk seen tànk takk seeni loxo waaw teg leen na xeetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Souleymane sant rek dañuy gaawantu def ko wante wa hadihi alquwa allati saxaraha allahu li Souleymane alayhi salaam taqtadi acdama alshukri lillahi subhanahu wa lida jaa ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ñu ne doole ju rëy ji nga xamante ni yàlla jox na ko Suleymaan mu tàggat ci jinne yi di leen liggéeyloo mu ne xéewal la koo xamante ni ku ko yàlla jox war nga ko sant mu ne looloo tax yàlla nag wax famille yonent yàlla daawuda te moo di suleymaan ki eh, ay mbokkam ak doomam ki sëtam ne leen nag sant liggéey leen te ngeen sant yàlla mi nga xamante ni moo leen defal xéewal yu rëy amalu liggéey leen àla daawud yéen njabootu yonent yàlla daawuda liggéey leen shukran ngir sant seen borom waaye nag yàlla nee wa qalilun min ibadiya shakur néew ci sama jaam yi ku dëkke sant ma néew na waaw da gis koo xamante ni yàlla defar na affaire defar defar léppam waaye kooku gën a mooy gën a mën a mooy yàlla koo gën a mën a xalab yàlla koo mën a gën a dumoyu yàlla nga gis koo xamante ni xëy na sax yàlla defal na ko waaye lam ko defal e, nit ñi gisuñu ko waaye e, teewul moom bis bu nekk mu ngi sant boroomam waaw su ko defee daal nit ki lim war dappatikoo moo di di sant boroomam waaw dañu wax nag ashakir wa shakur waaw ashakir wa shakur bokkuñu shakir mooy ki nga xamante ni su amee sant yàlla bu ñàkkee jàpp njàmburam kooku mooy shakir shakur nag mooy ki nga xamante ni su ko yàlla defalee mu sant ko su ko defalul mu sant ko moom daal dafa gis ne sant yàlla warugar la ci moom waaw ajuwul ci yàlla defar affaire am wala ñàkk koo defar moo tax yàlla wax ne i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur mbokk yi ngeen gis ne e, yonent yàlla suleymaan alayhi salaam am na fitna bu ko dal ci biir këram fitna boobu nag am na ñu ci tuumaal jinne yi mu mel ni itam ay wax am na ci ci fi yàlla waxee ne walaqad fatanna suleymaana wa alqayna ala kursiyihi jasadan jasadan summa anaab loolu am na e, lu ñu ci wax waaw wax yi bari nañu ci waaye danañ ci tànn yi nga xamante ni daal wax nañ ko ci la ca gën a dëppoo ak sunna ak yi nga xamante ni ay israiliyaat la mu mel ni wax nañu ne suleymaan alayhi salaam dégg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool ndax eh, yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatula la te Souleymane yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacter waxtaan ak yow pour dugal la ci lislaam boo nangoo baax na soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci lislaam waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk e fa mu nekk jafe woon naa dem ndax su fekkente ni amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll e wante nag suleymaan alayhi salaam yàlla daf ko tàggataloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram e, xeex buur bi ba dugal ko ci lislaam yàlla dogal Suleymaan biñ ko ko waxee mu préparé arméem e, defaru ba jëkk e, ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jëkk ak soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci lislaam buur bi lànk ne ko Souleymane alayhi salaam dem na ci buur bi jéem ko convaincre ci lislaam mu bañ mu mujj xeex ak buur bi ba mu xeexeek moom yàlla dogal Souleymane gañe ko yàlla dogal itam buur bi daldi gaañu ci biir xeex bi Souleymane nag ñam fa jàppoon ci ay jaam bokk na ca benn doomu buur bi bu jigéen bu rafet bokk na ca jaam yi mu jàpp e yàlla dogal nag Suleymaan e bëgg ndaw si ndax taaru ndaw si dafa jéggi woon dayo lool Suleymaan daldi bëgg ndaw si faf ko takk mu nekk soxnaam ba mu ko takkee nag fan yu njëkk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si daal dafay fanaane jooy di yendoo jooy di jooy rekk Suleymaan dem ba jaaxle ci jooy yi daal di koy laaj ni ko waaw man di depuis ma takk la ba léegi dama gis ne rekk bis bu nekk sa rongoñ di tuuru ngay jooy lan moo la naqari mu ne ko sama bàyyi dama ko soppoon bugg ko lool nga ray ko ñàkk gis bi ma ko ñàkk gis looloo tax may jooy Suleymaan ni ko waaw sa bàyyi amoon na nguur waaye amuloon nguur gu mel ni sama nguur sa bàyyi dëgg la moo la jur waaye nekkul loon yonent te man yonent la kon yow am nga chance nekk jabaru yonent di dund itam ci nguur gu dàq ga sa yoroon xanaa loolu mënta defal sa xol ndaw si ne ko déedéet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatina fa sawwaru li suratahu fi daari allati ana fiha araaha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhiba dalika si ne ko man daal dama yaakaar ni soo digaloon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ne loolu mën naa dëfal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleymaan daldi digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati eh, baayam ñu tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleymaan ayee du def dara waaye bu Suleymaan ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati baayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Asif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla suleymaan asif ibnu barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al moom nag eh, ku amoon laissez-passer la ci biir kër Suleymaan fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleymaan te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleymaan te Suleymaan itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Asif ibnu Barxiya yi mu nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleymaan musu ko yëg wante Asif nu Barxiyaam yi bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa noonu rekk yàlla dogal mu fekk ndaw si di sujjóotal estati boobu Asif ibnu Barxiya am lu ko metti lool ndax yar gu leen Suleymaan yar ci tawxiid yar gu leen Suleymaan yar ci wéetal seen borom bañ koo dendaleek dara ndeke ndaw si de moom mu ngi sàcc di jaamu xërëm ci kër gi te borom këram yëgu ko asifunu barxiya moo dem wax ko Suleymaan ni ko gis naa ci sa biir kër loo xam ne yàlla bëggu ko mu ne ko lan la mu ne ko eh, sa ndaw sa kat estati ba nga ko tabaxaloon moom yàlla la ko def keroog Suleymaan dafa mer keroog Suleymaan dafa mer mer bu metti bi mu ñëwee dafa toj stati bi daldi yedd ndaw si ne ko lii nga def waroo ko woon def def nga lu rëy ndax li yàlla gëna a bañ moo di bokkaale lu tax ngay jaamu xërëm bi su ma xamoon ne tabax xërëm bi tabax eh, statut bi ak jaamoo nga ci namm kon duma ko def wax ne ne Souleymane Keroog ànd na moom dong dem ba ci àll ba mu wéetal fa boroomam jéggulu ko wan ko ne ko itam lii erreur bu rëy la ñu ne ci ni ñu nettalee Suleymaan alayhi salaam bu masaan di dugg ci duus am na jaaro bu mu takk ci loxoom jaaro boobu du ko yóbbaale amoon na benn taaraam bu mu wóolu bu ñuy wax al amina ma da daan summi jaaro bi rekk jox ko ko ne neen nag pouvoiru nguuram doole nguuram gépp mu ngi woon ci jaaro boobu la ci jaaro boobu la noti jinne yi ci la daan wax ak picc ci la notee lépp wante jaaro boobu bu daan dugg ci duus daawu ko yóbbaale moo tax ñu ne laa yamassu xaatimahu illa wa huwa ñu ne wante moom Souleymane bis doon na dugg ci douche daal di summi jaaro ba dénk ko taaraam boobu ñuy wax Amina ndeke wax ne ne yàlla mere na ko ci tabax boobu mu tabaxaloon ndaw si statue bi moo taxoon nag seytaane am doole ci wàllam ba profiter occasion ñëw jël jëmmu Souleymane ñëw ci taaraam boobu di Amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleymaan mu yëkkati jaaro ba jox ko moom seytaane mu daal di dem ca trônu Suleymaan ba daal di fay toog di àtte comme nam daan àtte jinne yeeg rab yeeg yépp déggal ko di topp ndigalam yaakaar ni Souleymane la ndekki dafa jël melokaanam jël jëmmam ba mu mel ni Souleymane la moo tax bi Souleymane génnee ci duus bi wax leen ne kanamam changé na lool ba nirootul sax Souleymane ndax erreur bi nga xamante ni am na ci këram te muy xërëm bañ fa dugal loolu taxoon na Souleymane ñëw ci Amina ne ko jox ma sama jaaro mu ne ko yaay kan man jaaro ba jox naa ko Souleymane delloon naa ko ko yow yaay kan Souleymane di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne mooy Souleymane nit ñi di ko xëllëf suuf naan xool leen waa ji moom de dafa dof nee na moom mooy buur bi yow boo doon Souleymane da taxaw fii naan man la Souleymane mu mujj jaaxle dem ca tefesu géej ga ànd faak benn nappkat ñuy ànd di napp bu ngoon jotee nappkat bi jox ko ñaari jën benn bi mu jaay ko bi ci des moom lay butti daal di koy reere fa la nekk lu tollook ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamu na xërëm boobu lu tollook ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleymaan yow ko waaye ba fa toogee ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne jii di asif ibnu barxiya bi mu xoolee daal doxalin wi xew ci kër suleymaan lu tolloog ñeent fukki fan bokkut ak na suleymaan doon tërale bokkul itam ak na mu doon doxale mu daldi dajale nag jinne yeeg ñépp ne leen nag nemmeeku naa ci kër gi loo xamante ni daal xawma ma ni ma ko gisee ngeen ko gisee wala déet wante daal gis naa ni kii toog fii di àtte daal bu dee Souleymane la itam eh, bokk ak Souleymane ma ma xamoon bu njëkk wax ne ne ba seytaane xamee nag ne nand nanu affaire am ci la naaw nag daw yóbbaale jaaro ba ba mu demee ba tiim géej fa la ko sànni waaye ci ma yàlla ak mbaaxam ba ñu demee ba nga xamante ni Souleymane war naa ñibbisi fekk ñu nappoon jën yu bari ah, waaja def nam daan def rek ndax bu ñu masaan a napp ba pare dana jël ñaari jën jox ko waaja daal jël ñaari jën jox ko Souleymane dem ca marché ba jaay benn jën bi beneen jën bi ci des mu butti ko fas yéene ko reere ba mu ko buttee nag ndeke jën woowu ba seytaane sànnee jaaro ba moom moo ko wann ci biir géej gi yàlla dogal itam ñu jàpp ko ba waaja day joxe jën itam yàlla dogal mu nekk ci cëru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam ba mu dee jaay ñaari jën ya yàlla dogal na mu jaay beneen ba e bi jaaro bi nekk nag moom la téye fas yéene ko reere moo tax ba mu ko buttee fekk ca jaaro ba ba mu xamee ne jaaroom la mu takk ko pouvoiram daal di dellu siwaat ci moom mu daal di dellu siwaat nag fekk seytaane dem na mu daal di toogaat ci chaisam di àtte na mu daan àtte waaye nag ca la xame nag xam gu wér ci ne yàlla ko nattu mu delluwaat ci boroomam loola tax ñu wax ne wa laqad na suleymaan wa alqaynaa ala kursiyihi jasadan summa anaab waaye eh, ahlu sunna daal daf ko weddi ñoom dañ ne daal ëpp na pouvoiru yonent yàlla Suleymaan di nekk cib jaaro xëy na histoire bi nett leen ko nii wante daal loolu daal wax dëgg yàlla doyu leen ñoom comme argument mbir mi daal warul deme noonu et am na itam ñeneen ñu ci wax ndax moom dañ ne la rayba anna misla hada tafsir wahmun wa dalal li anna al mulka bi yadillah waxda la yati bi wadaci alxaatam fi fi l ñu ne nguuruk yàlla ak pouvoiram daal ëpp na yàlla di ko teg ci jaaro kon daal wax bii daal wax la boo xamante ni ah, wax nañu ko want daal taxul ñoom ñu ci baasewu ci wàllu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baaxee ni yonent yàlla Suleymaan jinne warta jël melokaanam waaw seytaane warul jël mukk melokaanu yonent nitu yàlla sax wëlu yi sax seytaane warul jël melokaanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci xadis ne ku ma gis ci gént mën nga gis ndax seytaane mënul jël sama melokaan kooku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sell yii seytaane mënut a jël ñoom itam seen melokaan mukk kon mel na ni wax bi daal mën nañu wax ne israiliyaat la mu ne wa hunaka riwayat oxra yazkuruha mucdam mufassirin kalfaxri razi walqurtubi wa gayrihima wa minha anna fitnata suleyman annahu wulida lahu ibnun fa qaalat ash-shayaatin in aasha haada al-walad fa sawfa yatasallatu alayna ñu ne am na yeneeni nettali yoo xamante ni li ëpp ci firikatu alquran yi wax nañu ko ku mel ni faxru razi ak qurtubi ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar wax na ne fitna bi nga xamante ni moo daloon suleymaan moo di suleymaan dafa amoon benn doom doom ji nag seytaane yi ak jinne yi daal di ragal ne xale bii bu fi màggee ñoom ci liggéeyal Suleymaan ak ala Daawud ci la ñuy dee ndax duñu dañ mukk kon di nekk ci service nit ñi ñu ne kon nag nanu def pexe ba Suleymaan bañ a am ku ko donn léegi nag ci leen doon fexe ay fexe pour jéem a boom doomu Suleymaan jooju waaye suleymaan alayhi salaam dafa jëloon doomam jooju aj ko ca kaw niir yi pour làq ko foofu pour jinne yi bañ koo mënal dara lu tax xaw min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne waayante nag gis suleymaan génn na ba dugg si waat ci tróonam